taaboo ilallahi min ko sil xati at loolu dafay lu am solo ñu xam ne yaa rabbi in aataytani fa sukru wa in manaata faridan sabru yooyu yëpp dafay yoo xam ne euh, ay ngànnaay la yoo xam ne bu waxtu wi tolloo da koy xam cant rek moo fi am ndax dogal bi suñu borom indi muy lu mel ni ak daay ñëw ci almouride mais mënoon na ànd ak musiba ba kenn rot kenn loruwut kon lii nga xam ne mooy li yàqu matériel rek la te matériel euh, li ko fa def yàlla suñu borom mi lay kattanal ba tey jii def ci yow lu tax nga mën koo yeesalaat kon ak cant rek la wax dëgg yàlla ñoo ngi yeesalaat suñu cant ak di yees feddaliwaat sunu suñu gaayante suñu diggante ak Sëñ Tuubaa dëgg la euh, dogal moom toujours daf lay jàngalaale tamit ci wàllu àdduna ngay gën a xool nooy songee li nekk sa kanam ndax loo xam ne coupe-circuit la démarré. coupe-circuit donc problème électricité mu daal di jël empleur boo xamante ne yàq na fa lu bari les dégâts matériels am na mais dégâts matériel boobu li tax mu woyof mooy Hizbut Tarqiyyah ñun li ñu jëkk sant yàlla suñu borom mooy yàgg ngeen dégg ñu naan Al la première chaîne IPTV au Sénégal Al du benn chaîne de télé rek plusieurs chaînes de télévision la loolu waa Sénégal mën nañ ko bañ a xam ndax ñi nga xam ne TNT rek la ñu xamee Al Mouridiyyah benn chaîne la ñu xam. ñi ko xamee ci TV euh, euh, d'Orange benn la ñu xam ñi ko xam aussi tamit ci lu mel ni bouquet kanaal benn la ñu xam mais boo demee yenn réew lu mel ni bitim réew États-Unis wala United Kingdom ah nga gis jël lu mel ni euh, plateforme bu mel ni Roku di nga fa fekk Al Mouridiyyah arabe muy dox di fa fekk Al Mouridiyyah français di fa fekk Al Mouridiyyah anglais loolu ngir lan ñi jàng ñi nga xam ne dañuy war a jàng war a jot ci bataaxalu Serigne Touba te langue yooyu lañ ko mën a jotee ñu mën koo jot kon Al Mouridiyyah plusieurs chaînes de télévision la chaînes yooyu yëpp nag boo ko xoolee logistique la dispositif la boo xamante ne ci diggante streaming diggante li nga xamante ne mooy tamit ay backup ak ay li nga xam ne mooy contenu ay serveur loolu stockage loolu lu yaatu la mais nag dafa am loo xam ne bu la ko yàlla dimbalee. da koy sante mooy Hizbut Tarqiyyah ci vision lay liggéey ndax en 2014 bi ñuy wax première chaîne IPTV au Sénégal na kenn yëkkati loxom rek ne amoon na IPTV au Sénégal boobu ñoo jiitu woon euh, tey jii yaatu na mais ñun ñu ngi feneen ndax tey jii dernière génération de streaming yi am euh, ak euh, lu ñuy wax une TV mobile loolu tey jii fi ñu toll nii bi lii di am. fekk na ñoo ngi ciy liggéey ba am ci lu ñu teg suñu suñu loxo kon ñun fi ñu toll nii tey jii bi dogal bi amee ñoo ngi nii di liggéeyaale tamit euh, ci ngoon masarab bi nga xam ne moom lañ seq ak Cheikh Mamadou Mountakha dara bañ cee sooxe kon ñu ngi sant di di di di di di di di tamit di massawu suñu bokki taalibe ak suñu bokki jullit ndax ci suba ba tey ni ñuy jotee ay appel euh, te du ñun sax ñoo ko siiwal waaye nit ñi lañ ko jot a yëg nañ koy jàllalee mooy wane ne lu viral la lu leen ñor la lu leen yitteel la waaye nag nañu xam ne sëñ Tuubaa du ñàkk dara lépp suñu borom fàggul na ko ko kon ñun ñooy wu sénégalais yi bokki taalibe yi bokki jullit yi ci ndax diggante bi nga xamante ne vingt quatre heures buy xaw a nuru dogantal wala quelques heures yu nuru dogantal diis na ci waaye nañu xam ne euh, loolee alxuraan di wax ne innahum yarawnahu ba'idan wa naraahu qariba loolu yàlla daf ko foto ci xolu waa Hizbut Tarqiyyah bu nit ñi tolloo fii fekk nañu ñu ngi feneen fi ñu toll nii la télévision du futur ci la ñu liggéey loolu moo tax bu leen am jaaxle liggéey Sëñ Tuubaa da ngay serrer sa ceinture da ngay gëm ne dogal moom suñu borom moo wax ne boo waxee ne gëm nga ma dinaa la nattu ba ma lay nattu ci yu mel nii nag fexeel ba sa bul sa ngëm gi moom bu dara yëngu loolu daal moom la ñuy ñaan yàlla